mbokki ahmadiya tv dal leen ak jàmm ñu dikkati ak yéen ci yeneen xibaar ni ñu koy faral di defee saa su di doore ak yéen ci xibaaru biir réew mi ca élection présidentielle yu 2024 mu mel ni nag jiixi jaaxa fees na bopp nit ñi ci anakan la njiitu réew mi di yebal ca élection yu présidentielle 2024 ak itam ñaar ñii di xalifa ababacar sàll ak karim sa wadd xam ni gannaaw ba ñu voté loi boobee sa assemblée di waral seenu bokk ca élection ya nga xam ni ku si nekk ci ñoom ñaar itam nga réew mi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett milliards ci suñuy koppar Karim Meïssa Wade ak lu toll ci juróomi million ci Khalifa Ababacar Sall réew meek li ko wër di xalaat ci seeni mbir ñaar ñooñee ndax dinañu jot loolee di firndeel seenu dëggal seenu bokk ci élection yu présidentielle yu 25 février 2024 réew meek li ko wër di xalaat ci mbiru Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade ndax danañu jot xarele yooyu di firndeel seenu bokk ci élection présidentielle yu 25 février 2024 Maître Ciré Clédor Ly doon avocat ci Ousmane Sonko di yëgal askan wi ki nga xam ni moom la état wu santé bu njiitu Pastef bi toll di xam le itam ne kii di client bii du Ousmane Sonko mu ngi ci juróomeelu fanam ñàkkum faj lànk ne du faju mu di xam leen itam ne état de santé mu ngi gën a yées ba tax na fa ñu ko téye jamono ji moo di l'hôpital de la place jëwriñ bi ñu dénk wàllum enseignement supérieur Moussa Baldé daal dina xam le ni jii nii daara yu kawe yooyu war nañoo gàttandu moom Moussa Baldé di xamle ni ren ji état bu Sénégal am na yéene orienté ñëpp ci daara yu kawe yooyu bu ñu sukkandikoo ci agence bi saytu wàllum yokkute réew mi di ANSD di amal akub seetlu di xamle ni jumtukaay xarale yu yees yi jokk ci wàllum électricité ak yasa aju daal dina yokk lu toll ci juróom benn ci téeméer boo jël gannaaw taxawaayam gu mujj accident bu metti te doy waar daal di am ca yoonu Bambilor démb ci talaate ji ab dawalkatu moto lañu génne ci suuf ab njaganjaay rek mu jëlee si ay gaañu gaañu yu metti lool ba fa la jaaree ñàkk ci bakkanam météo di yëgal askanu Sénégal ni ci 24 heures yii ay taw yu foor te ànd ak ay dënnu moo ñu nar a xaar bu ñu sukkandikoo si agence de l'aviation bii di ANACIM taw bii nar naa bari lool booy xool zone sud jëm penku te bitim réew ñu jotal fa nemmeeku yile xibaar foofee ca Angleterre directrice de cabinet bu njiitu réew Madagascar la autorité ya ca Londres tegoon loxo bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi actions yi mu doon jaay benn groupe minier bu ñuy wax Gemfield mu mel ni nag gouvernement bu Madagascar daal dina xamle ni yëgul benn yoon mbir moomee ba tax na rek ñu relever ko ci ay fonction am moom directrice de cabinet bu njiitu réew ma kuréel bu CEDEAO chef d'état-major yi war a amal ab ndaje alxamis gi ñu jub si ak aljuma fële ca Ghana war a waxtaane ba tey mbirum Niger ak coup d'état ba nees koy lijjantee yamook fu ñuy jeexalee xibaar yi ba ëllëg incha allah ci